sama yaay sonn na lu nekk mi koy daj ndax man sama yaay dem na bay xañ boppam di ma jox bëggul lenn lu ma metti jàng naa ba am samay diplôme bunt bu ma fëgg mu tëju man lii xawma lan la ba ñu ma liggéey dama gisum liggéey mbaa ñiy joxe liggéey ñi leen neex lañ koy jox sama yaay sonn na te man dong maa ko mën a dimbali bi sama papa gaañoo ba léegi sama yaay lu nekk mi ngi koy daj ndax man moom man am na lu ma xalaatee benn benn xeet. bàyyi. Fall Fall la ko war. waaye gars yi naa yëg Fall Fall la moo xew man man maa ngi taxaw fii gars yi di la nuyu léegi léegi ñaar yoon mais mais fay loo ma de ba jàmm. waaye wax dëgg gars yi nekk ci yeneen dimension rek. dimension lan Fall. waaye problème mu àdduna rek. problème mu àdduna Fall. waaw problème mu àdduna. ban xeetu problème mu xam nga dafa fekk ne nekkul lépp lañ mën a wax. dama jël baax bi a Fall ban rek. jaaxle bu sama yaay. Mhm. sama papa teel a gaañu bàyyi ma ak moom. Mhm. ma toll ci def. Mhm. ko ci war a def. te mënumaa def. loolu rek moo ma metti yenn saa yi damay xëy lu ñu sax luñ ko am. yenn saa yi añ sax duñ ci aw sama yaay day xañ boppam di ma jox te loolu mën mi maa ko woon a def dëkk bi amul liggéey ba mbaa bu amee liggéey tamit ñuy joxe liggéey ñi leen neex lañ koy jox dama sonn fal bul sonn parce que boo déggee mën a bul sonn mooy yàlla bu lay defar day mel ni luy yàq yàlla bu bëggee defar sa carrière foog mu am benn naqar bu mu la teg gis nga naqar bi ngay dund nii man dundoon naa bu ko gënoon pire mais dama ko rêvé muñ ko gëm ni yàlla rek a fi ne tey ji anam démb métti woon na ci man mais sa problème bi su ma ko teeloon a xam bu yàgg kon tey fii nga toll tey ji doo fi toll dëgg la nag donte bi nga xamante man ak yow yàggul mais am na benn xeetu jom boo xamante ne gis naa ko ci te gis naa ni yow jàmbaar nga musuma laa gis nga toog ci bopp koñ bi wala nga toog sa buntu kër sa kanam mel nii kon tey ji su ma demee tey ba gis sa xar kanam mel nii may taxaw di la nuyu mënoo maa fay rek yaa quelque chose moo taxit ma toog jël sama baax teg ko fi tey ji dina la laaj mais bul mu sa xaat doom ndey li nga wax lépp dëgg la li nga wax lépp dëgg la mais sama yaay li ma ko bëggal faw ma def ko sama yaay faaw ma jëndal ko kër jëndal ko oto sa loolu tukki dong moo ma ko mën a may jël naa sama décision nag damay dem ci gaal yi. def loolu. non damay dem. bu def loolu déglu ma dañuy waxtaan bu def loolu gis nga bu méttee rek nga ragal wala bu méttee rek nga da ngay xàddi dugg ci gaal yi loolu xaru la te mën ngaa tey la sa bopp. gis nga doomu adama gëm-gëm bu nekkee ci yow bis boo jàppee ne bis a ngi ñëw rek yow loolu nga ko yéene di nga ko ko defal yaay suñu borom mën na la cee dimbali mais xam la laa bëgg man boog li ma am as néew yéen ñi yéen a tax ma am ko parce que damaa jaar fu metti kon tey du ma yor dara dina bàyyi ngay dem di dugg ci ay géej loolu du ma ko def. doom ndey sama yaay non da may rek. sama yaay dafa sonn sama yaay faaw ma sa yaay sonnoon mais déglu ma déglu ma dañuy waxtaan tuuti dañuy waxtaan gis nga lii ma a jox nii lii du dara lii urée mais téye ko man bu subaa su ma fi jaaree dina am na ma waxtaan ak yow yàlla nag mayu ma teraanga mais may dama ay doomu adama gis nga doomu adama yooyu nga xam ne yaay suñu borom moo ma jagle ak ñoom ba saay ma ñàkkee su ma jubee ci ñoom tamit sama aajo faju si kàttanu suñu borom fa may dugg di fa dugg ngir yàlla ak war suuri boo demee lii jënd si saaku ceeb nga jënd ci diwlin li ci des yàlla suñu borom mën na lépp ngir yàlla nag waxu gaal teg ko suuf dinañ ko waxtaane waat maa ngi dem ngir yàlla war a suuri lii na yam nag sama diggante ak yow kenn fekkewul man la ak yow ak yàlla sama yaay faaw ma dimbali sama yaay faaw ci li mu ma jox nii dina may jën bis bu set jàngal la nu ñuy nappee moo ko gën sama yaay dinaa ko dimbali damay dem ci gaal yi lu ma mën a def naa dem